ngir jëmmal wàllu autonomisation des femmes soxna yi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci kuréel bii di ànd defar yi doon amal démb ab daje ngir def seen tojub kees bi nga xamante ni moom la ñu doon amal depuis at a ngi ki nga xamante ni moom mooy jiitee boobule kuréel di ñëwaat ci li nga xamante ni moom mooy boobu mbootaay nga xamante ni teg nañ ko depuis at a ngi yi ñun ñoo ko ñaqal suñu bopp ñoo ko liggéeyal suñu bopp chaque mardi ñu ngi daje fii ñu natt suñuy xaalis suñu dërëm suñuy tànk ba bis ni tey tey ñuy toj suñu leget presque leget yi tey bu ñu yeboone tey am na 15 millions yu teg suñu liggéey rek que wax dëgg yàlla ay femmes yu jàmbaare ñoo bokk ay femmes yoo xam ne dañoo boole seen doole te ànd ñu tey boolewuñu ci daraay wax kenn ku nekk. soo xëyee chaque mois bi nga déparé bu dee cinq mille nga déparé cinq mille yooyu ngay ba mu mat un an bu dee deux mille cinq cent moom ngay déparé ba un ba un mat bu dee mille franc nga am ku nekk fu sa doole toll rek yaa ngi jaay tisi mi ngi ci kii jaay géej ak diwtiir ñëpp ci ndax kenn ku nekk rek sa tool dem rek maire bi séddé la koo ànd ak yow ci xaalis boobu muy dajale par mardi xaalis boobu lay tourné waat tasaare waat ci jigéen ku nekk mu lebal la nga dem su maa bi jotaatee nga am loo cay dugal intérêt ba mu lay dencal dala koy dencal ba déwén boole ginnaaw ba ñu jeexalee at bu njëkk bi nag ñu am lu toll ci fukki million ak juróom yoo xamante ni lépp ñu ko amalee seen natt yi ngay xamante ni ah, talaata bu nekk lañ koy amal. un an kese ñu am un million am nañ ko. waaw ba tey dañ doon def financement ci biir mais 15 millions ñun ñoo ko natt suñu bopp.

kon financement DER yi wax ba gis gisaguñu. ñun gisuñu DER. kon DER de. waaw projet yooyu yëpp mi ngi suñu bopp mais xam nga bu dee jigéen dooleem rek lay dox amaguñu capacité pour yegg waaye nag ñi tàllal loxo képp koo xam ne mën nga ñu jàppale ba fii ñi fiy jaay géej ak diwtir ba seeni GP di ko yóbbu bitim réew loolu dañ koy rafet ndax nag ñii ku leen jox ñu liggéey waaw fii ci at yi ñu jëm bëgg na lu mel ne céréales locales ñu koy demandé ministre de la femme Ndèye Saly Diop comme ni mu koy jàppalee jigéen ñëpp bëgg nañ ay financement ndax fii ku jàppale femme yi ñu liggéey ay mag a ngi war na noo mën a def seen céréale locale war a mën a weer seen i produit di ko jaay bitim réew def ci seen logo loolu yëpp ku ñu jàppale financement ñu jëm ñu ko jox koy ñu jël nag loolu la bëgg ku ñu jàppale ñu liggéey parce que ay jigéen bu ñuy liggéey ànd di daan soon doole ñii jaaykati jël lañ yi ñii nga ca gerte ñu jox xaalis ci beneen wàll nag ñuy woo tamit ñi nga xamante ñoom ñooy maire yi nekk Caaroy ak yi nekk biir yëmbal ñu leen jàppale ci wàllu formation wàllu financement ngir seen activité yooyu gën a ñoŋ uh, ci li nga xamante ni moom la liggéey ngir uh, ci at jëm ñu mën a mën a gën a jëmbal seen liggéey yi nga xamante ni ñu koy am ci biir mbootaay boobu di ànd defar Caaroy